assiste li nga xam ne moom moo di bile ba tey ñu ngi noonu euh, bloqué wu euh, ci euh, suuf li nga xam moo di escalier yi. di li nga xam ne moom la ñu wax mooy que ni. cette assemblée nationale par force dañu koy daal tas voilà honorable Amadou honorable député Amadou Ba moom ci boppam mi ngi noonu euh, doon ñëw ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, tey jii pour euh, waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo di public bi fi ñëwoon fële ci assemblée nationale. dafa war a joxe avertissement loi doo ñëw rek appliqué ko directement ñun jàng nañ. fii ku fi nekk nekkul man mi di wax yow jàng naa fac droit laa jàngi génn dem jàngi Maroc ñëwaat non lii lenn kese la ñun mënuñoo nangu depuis 1960 ay pa ay maire nekk au pouvoir ah di bëri fi sow nous on est des citoyens man jeune la le projet passé moo tax ma bàyyi après mes études ñëw gëm projet bii nii de préféré ma ñibbi je préfère rester ici. d'accord ngeen si dissolution institution yooyu. waaw institution boo xam ne lan la njëriñ. quel est son rôle kenn xamul lan mooy rôle am nañ ko dissoudre pour ñu sakkani le budget de l' ñu ne ñoom duñ ko def. mais ñuy wax ne le premier ministre il a le droit de ne pas venir fii parce que fii la majorité des députés qui sont là ce sont nest pas ay guignol la président euh, premier ministre su ñëwee ay waxu détail lañ koy indi fi ay détail mars 2021 actuellement nous on a besoin un leader boo xamee si wàllu xam-xam lay wax n'est-ce la loolu lañ si am voilà gis ngeen Eh, mais mais Zambia nuyu nañu mais la la la la la mën nga ñëwaat ci la xew ci kaw tey ba tax ñun dañ leen di génne. non man depuis suba depuis su suba euh, dafa am loo xamante ne Farba Ngom daa mel ni moom mooy jox ordre yi parce que ñun ba ñu ñëwee euh, ñoom dañuy ñëw menacé ñu bañ toog léegi nag menacé ànd ak ak saaga kon nag am na loo xamante ñoom dañ ko préparé pour ñun ñu bañ a toog fu ñu nekk. parce que déjà moom ba ñu dem ne président assemblée nationale dafa ñëw ñun ñëpp nañ jóg donc loolu lii nii dañ ko préparé ñoom coup bi parce que ñun bañ nekkee matin ba ñëwee bañ toog la Farba Ngom ñëw di xool ci kaw. Farba waaw ba ñoom mu xool ci kaw ba mu xoolee ci kaw may gis mu discuter ak gars yi mu jël portable woote gendarme mu ñëw rek commandant ñëw di saaga comprendre ku fi ku fi ku fi yuuxu dañ lay tëj comprendre commencé menacé. xam nga dèjà foofu menacé ñëw na kon nag am na loo xamante ne ci biir la am kon nag loolu autorité war nañ ci jóg commandant yi ak ak ak ak ak ak homme de tenue yi ñu xoolaat seen biir ñu seb leen parce que dafa am waa APR yu nekk si ñoom ba léegi nii d'accord mi ngi noonu euh, dégg ngeen kàddu yi nga xam léegi tas di suñu assemblée di suñu ACC jël xaalis rationaliser ko def ko ci budget Sénégal mu jëriñ askanu Sénégal lii amul njëriñ dañ koy tas ne ñun xàmme dafa ñëg te dafa tuuti ci kaw yuuxuwuñu waxuñu tàccuwuñu wallaay la ajam daa ñëw ñëg beneen chef ne ko bàyyi leen ñu toog mu bañ mais ñun ñu ngi doog ñëw ensemble c'est la première fois ñëw ensemble te waa AP fii lañ daa ñëw indi ay sabar ah di def lu leen neex ci biir ensemble bi mais pourquoi moom bokk AP ba ñoo ne da di génn par la mais ñu suñu message bi ñu bëggoon mu jàll jàll na ñu xam ngeen ngay waa APR merci beaucoup d'accord mi ngi noonu euh, dégg ngeen kàddu yi nga xam ne en tout cas yëkkati. chef suñu xaalis la lii waroo leen ko nangu 15 yi suñu xaalis la waaye affaire waruñu ko jël lii ñun ñëpp a ko ñun a waral bañ. xaalis Sénégalais yi la pour pour lan waa APR di ko jël 15 milliards yi dina ma jëriñ jëriñ la jëriñ say doom jëriñ say kii kon lii nii waruñu leen may dara waa APR moomuñu Sénégal dafa yomb tant des années tant des années ñu nekk fii nii di souffrir ba kañ ba kañ 15 milliards ñoom ñu non saay may ko yan da ngeen di bàyyi ngeen di bu wax ni ko bàyyi xaj pour lan kon ma buur ma doole bu ma góox bu ma góoxante ba pare da nga nekk seen liggéey bu ñu góoxante ba pare dañuy wan ñu daw ñu bonni ba pare Amadou l'Assemblée. Dissolution de l'Assemblée. Dissolution. ak TFC dañ koy tas war force mu neex leen mu naqar leen ak TFC dañ laaj ci lu boobu kañ lañ ñaan di Sénégal di dox nañ laaj ci lu boobu c'est pourri voilà comme euh, vous le voyez ci euh, li nga xam ni rek euh, moom di image yi ngeen gis ni ñi nga xam ni kon ñoom ñooy takk der yi daañu nañu rek. Euh, réussir euh, daal di évacuer ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo di public bi nga xam ni moom moo fi nekkoon. mais ki nga xam ni nag. Euh, moom mooy l'activiste Bayna Gueye ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, takk der yi euh, mi ngi woon ci seen yoxo je ne ndax yóbbu nañu ko wala bàyyi nañu ko mais en tout cas ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo takk der yi jëloon nañu ko mu nekk xibaar boo xam ni danañu xaarandi ndax dinañu am confirmation ci dañu ko te am déet mais gis ngeen daal kon li nga xam ni rek noonu la fi situation bi demee woon mu nekk li nga xam ni génnoon nañu ngir topp noppal leen ko mu nekk en tout cas alburax loo xam ni euh, jàpp naa ni tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, public bi ñu gis ci ay patriotes yoo xam ni euh, ràññee nañu leen bu baax a baax mhm. ñu ñëwoon daal di assister ñu jàpp ni national dafa rek eh, daal di topp eh, bëggu-bëggu ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom bi ñëwoon xëy na eh, doon leen daal di rek xool en tout cas bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay kàddu yoo xam ne ñenn ci ñoom yëkkati nañu ko leen nag li ñuy seen bëgg-bëgg ak li ñuy sàkku jamono ji mooy ñu tas li nga xam ni moom moo di ACTC parce que ñoom dañu ñëw jàpp ni waa Benno Bokk Yaakaar daal li ñu bëgg def ak di ko euh, dëkkee xëy na ci euh, réew mi loole itam euh, dina xaw a doy waar